ma bàyyi moom mhm. moo euh, mu tàbbi ci waxtaan mi yow aussi nan nga euh, jàngatee changement bi nga xam ni am na ci biir magistrature bi. je pense que au-delà de euh, bëgg-bëggu njiit yi. wala mhm. mu doon loo xamante ne ni lu ñu war a def la dafa nekk loo xam ne askan wi ñoom ñoo ko yàgg sàkk mhm. parce que dama jàpp ne régime bi fi nekk tey am na lu bëri loo xamante ne nii. mise à part ñoom ñu bëgg ko def le peuple sénégalais si boppam daf koy réclamer. peuple sénégalais. mooy réclamer ne ñun dafa am lu ñu gis ci biir réew mi mooy dañoo tolloon benn jamono boo xam ne ay nit dañoo nekkoon ci réew mi di def lu leen neex ci jamono boobu nit ñooñu di def lu leen neex euh, mu am ñoo xamante ne dañoo nekkoon ci justice bi nekk ci justice bi waaye seen taxawaay jaaxal nit ñi mooy des juges yoo xamante ne nii mbir day xew boo xamante ne waxuma la un juge waaye boo ko joxoon benn sénégalais lam daane ko kaay àtte ko mu àtte ko mm-hmm. je peux donner un exemple tey Ousmane Sonko mbiru contumace bi cuun doon wax léegi léegi. Mhm. Ousmane Sonko dañu ko teg loxo. bañ ko tegee loxo ne dañ ko jugé par contumace. Mhm. ci base contumace boobu noonu la ñu ko euh, génn ci list électorale yi. Mhm. waaw mais nit kooku noonu ñu dem bañ ne ko ciix jàpp tëj ci kaso bi. ku mel ni Ismaïla Madior Fall génn taxaw ci kanamu sénégalais yi ne leen kat Ousmane Sonko moom contumace la dañ koo tëj léegi Ousmane Sonko ñun bi ñu teg loxo ak Ousmane Sonko bi nekk contumace bokkut. des mensonges bu flagrant boo xam ne ba nga ko waxee xale bu ndaw bu tudd ngañ Demba Touré. Mhm. moo génn ci benn plateau toog mais daj li nga wax ne la sëñ bi ministre de la justice. Mhm. monsieur Ismaïla Madior Fall li nga wax du dëgg. expliquer réellement nag nii ak nii ak nii la mbir yi demee. Mhm. gannaaw loolu et je pense que foofu la leçon de morale bi nekk mooy la ñu fa war a jàngee sur cette polémique là ay diw affecté nañu ko Tamba ak yu demee noonu. Mhm. je pense que foofu euh, li ñu naan puso euh, dëgg puso bu réer la xale dina ko for mag dina ko for. Mhm. dama jàpp ne su cette question là dafa am benn jeune boo xam ne dama gëm ne daf ñoo jàngal ñun ñëpp leçon de morale par rapport ak li ñu nekk di waxtaanee mooy mbirub affectation. parce que le 16 juin 2023. dafa am ab arrêté bu jóge ci ministère de la justice. arrêté boobu noonu am ay greffier yoo xamante ne nii daf leen jël yóbbu leen à Tamba. ci arrêté boobee mu bokk si moom ku mel nii Ngagne Demba Touré ku mel ni euh, y avait l'autre euh, damay fàtte tur bi. Euh, maître maître jàmme Euh, Tanor Diamé et tant d'autres des jeunes yoo xam ne dañu leen jëloon affecté leen à Matam mais je pense que leçon de morale bi ma bëgg indi foofu mooy réaction bu Ngagne Demba Touré ci affectation bañ ko yóbbuwee à Tamba. Ngagne Demba ñu yóbbu ko à Tamba affecté nañ ko ñu jot formation même pas benn fan ñaari fan ñu xëy su suba gis Ngagne Demba Touré à Tamba. léegi ban discours la tenir et je pense que loolu mooy leçon de morale bi ñu war a jàngee sur cette affaire là Ngagne Demba Touré li li li mu wax mooy. euh, le ter le territoire sénégalais est un territoire indivisible. Mmh. Je serai très heureux de servir les populations de Matam. Je suis fonctionnaire et la fonction publique transcende les simples caprices d'une autorité administrative. Mmh. Je pense que leçon boobu moom mu ñu jàngal euh, Ngagne Demba Touré tey moom lañu ñu war a bàyyi xel sur cette affaire là moo ñuy wax ne non dañuy yóbbu diw Tamba wala c'est de débat bu posé wu mhm. pour man soo demee ba ñoom de démb ak bërki démb ñoo doon wax ne ba ñu ba ñu ba ñu tegee lii ngañ démba Touré ñoom ñoo doon dénoncé naan non affectation bi teguwul ci yoon mhm. waaw mais ngañ démba moom ndeyu mbili moom li mu wax mooy moom am na fierté am na mbégte ci dem servir fi nga xamante ne moom moo di Matam parce que moom jàpp na ne Sénégal territoire bi yëpp benn la et dafa indivisible looloo nekkoon taxawaayam et je pense que taxawaay boobu noonu ci la ñu war a am jàngat. Mhm. sur cette situation là taxawaay boobu noonu nga xam ne ngañ démba Touré am na ko ci léegi nag sénégalais bu nekk. débat mais si benn famille si parti politique. Mhm. biir Pastef da ngay toog parfois ñiy jaar ni ñiy jaar na la. absolument débat bu amee bu posé woo am na ñoo xam ne ils te diront man dama jàpp ne affectation yi lu mel ni yóbbu nañ diw Matam yóbbu nañ diw Tambacounda. Mhm. dama jàpp ne sanction la. certains te diront et la la plupart en tout cas ñi ma si ëpp ñi ma déglu. Mhm. dañuy jàpp ne manque de respect la sax di wax ne yóbbu diw Tambacounda euh, affectation boobu genre sanction la léegi nag mbiru Maham Diallo. Amady Diouf ak xaw ma keneen ak keneen ñoom ñu yóbbu <laughs> à Tamba. Tamba suñu mënee xëy suba dem def ay manifestation dañ ko def parce que ñoom ñu ngi en danger. Mm-hmm. parce que dama gëm ne ces gens c'est des parasites fu ñu nekk fu nekk dama gëm ne ña fa nekk ci danger lañ nekk. Mm-hmm. parce que c'est-à-dire gaaw bu fàtte xaju fi. Mm-hmm. xoolal procès Adji Sarr des mensonges du début à la fin ay nit jël ko promouvoir ko yóbbu ko chambre euh, criminelle def si liñ siy def bàyyi bàkkanu sénégalais rot ci. ci loo xam ne du début à la fin lépp ay fen la. dossier Adji Sarr kese kese bu ñu ci sukkandikoon jàpp naa ne ces gens euh, li cuun doon expliqué léegi sax à dire procédure yooyu jàpp naa ne war nañ cee taxaw parce que yow mënoo fekk danger dakaar nga jël danger bi tuxal ko yóbbu ko Tambacounda ñoom it ñoo yee di yuuxu soxla mais soxlawuñ ñii c'est des parasites soxlawuñu leen Dakar soxlawuñu leen Tambacounda ak feneen ak feneen. mais seen nekkin dina xaw dina xaw doy waar ndax gis nga ñi fa nekk ñi. commencé Tambacounda loolu boo leen mënee yuuxu yuuxu leen boo leen mënee marche marche leen mhm. musiba la ay danger public lañu parce que tey je pense que yow xoolal tey ji dossier Adji Sarr boobu noonu taxawaay bi ñu ci amoon nga gis benn justice boo xamante ne dafa am ay ñenn nit ñoo xamante ne mais Macky Sall moo leen doon manipuler boppam li mu bëgg lañ koy defal waa léegi ñoo ñooñu boo toogee tey ji pour man différence bi leen la soo bëggee comparer affectation yi amoon bu njëkk affectation bi am léegi xam nga luy bi mooy ñee dañoo ñëw si biir dëkk bi nekk justice bi képp kuy bañ képp kuy euh, wax ne moom dafa am dignité képp ku ñuy wax ne diw dafa am ay valeur képp koo xamante ne mënoo ko manipuler dañ la fi jëlee sànni la fa sori. Mhm. parce que li ñu soxla mooy des gens yoo xam ne ñun dañuy ñëw di leen manipuler di leen sant li ñu bëgg ñu ñu koy defal. Mhm. alors que si si si cas de figure bii ñu nekk nii mais yow est-ce que xalaat nga ci sa àdduna que si fay bi ñu doon teg pression bi ci mbirub Ousmane Sonko ci dossier euh, ci procès boobu ci euh, mbirub éligibilité am. Mhm. ak pression bi mu subir yëpp mu taxaw tenir tête. daal def li nga xam joxe joxe li nga xam ne moom moo di dëgg Sabassy Faye boobu nga yaakaar ne tey dina ñoom Ousmane Sonko dinañ ko fal pour manipuler Sabassy Faye est-ce que xel nangu na ko le juge Racine Thion récemment pression bi mu subir fii ci tribunal hors classe bu Dakar. Mhm. pression bi mu subir ba daal di génn euh, décision bi nga xam ne ni moom la def nga yaakaar ne Racine Thion boobu noonu ngay indi pour que nga bëgg mais soo bëggee manipuler c'est li a yomb xam nga lan la. Mhm. dafa am ñoo xamante ne mbir mi benn xeetu ngeen baal ma prostitution lañ ko jàppee woon mooy ñoom teg leen fi nga leen teg di leen jox alal li ñu bëgg nga leen koy defal mais loo bëgg ñu defal na ko bu fekkoon ne tey sa régime bëgg dëgg mhm. des yoo xamante ne nii loo ñu defal la ko jarul changement di am parce que ñoom loolu habitué lañu ci xeetu doxalin boobu mooy nguur bu fi ñëw l' essentiel mooy ñun lu ñu bëgg c' est des carriéristes mhm. ñoom nañu toog di am euh, post yu baax nga leen yokkal xaalis di leen këpp xaalis bu bari ñuy am ci kër yi di am ci woto yi. su la neexee ñu tëjal la Macky Sall ak ñam àndoonoon ak ña takk ci moom ñëpp. bu fekkoon ne gars yi dañoo bëgg rek jaay doole tëj. waaw mais am na ñoo xam ne c'est des professionnels yu yu mun loolu mooy ñoom maa xam jàlloon ñi. parce que yàgg nañ ko def dañoo wane seen i preuve ci loolu. nga ne ay lan ay professionnels lañ ci. mais koo xam ne manipuler damaa bëgg rek man justice boo xamante ne nii sëñ bi waa ji euh, moom yoonam newul si lii mooy dëgg ak lii mooy yoon. man naa bëgg tëjal ma diw mu tëjal la mais yow ñii dégg dégg naa Abass Fall mu ne am na si koo xam ne daf leen doon wax sax ouvertement saa waay soo leen bëggee. ma tëjal leen Macky Sall si boppam man l' essentiel mooy man. waaw moom waxoon na ko nee na amoon na procureur bu ko wax loolu. Ah, léegi xeet bu xeetu nit yooyu noonu. Mhm. danger la ñu ci biir dëkk parce que tey ñiy toog fi lan la ñu diggoon sénégalais yi mooy réew moo xamante ne réew bu juste lay doon réew boo xamante ne nii justice bi dafay tëddee njaaxaanaay mhm. te boo bëggee réew boo xam ne justice bi dafay tëddee njaaxaanaay da nga am choix entre def ñaar mhm. mooy nga tànn ñoo xamante ne nii dañ ay ñu ñuy manipuler lañ ñoo xam ne c'est des carriéristes mooy xeet gi ñu sànni Tambacounda nga xam ne loo bëgg dañ la koy defal ni nga ko bëggee waaye nga am choix wu tamit tànn ñi nga xam ne gëm nga ne nii démb ak bërki démb ba ñu nguur gi fi nekk bëggee faagaagal bëgg leen teg pression na la Ousmane Sonko mi kat wax dëgg yàlla suñ ko tegee si yoon rek kenn waru ko génn ci liste bi mhm. parce que contumace bi tëb na waaye yow li ñu bëgg nga defal ñu mooy defal ñu ko condamnation boo xamante ne nii moom Ousmane Sonko dootul mën a nekk candidat mhm. léegi ñu nga xam ne dañoo bañoon démb soo jëlee bañkat yooyu teg leen kay pour man loolu dafay montrer nga bëgg réew bu que mhm. kooku bañoon démb yow amoo yaqin ne man su ma ko tegee fii tey su ma bëggee dara dina ma ko defal. Mhm. donc yow réew bu juste nga bëgg. donc man dama gëm ne au delà day affecté ay Tamba ñii dañu war rendre compte parce que dañoo yëkkati ay mbir ay caaxaan yoo xam ne nii ay sénégalais dañ cey dund lu métti ay nit ñàkk ci seen bakkan te lépp ñoom seen loxo la commencé. Mhm. juste parce que Macky Sall nii la ko bëggee ñoom noonu lañ koy defee ñu jël mbir ñu forcé ko xoolal forcing bi ñu def sur l' affaire Adji Sarr tey jii ak. li li mu li mu li mu causé au Sénégal bakkan yi coro li ci xew yépp est-ce que loolu dañuy xëy benn bonjour rek ñu ne bon c'est pas grave danger public danger public la danger Dakar danger la waa Tambacounda ba ngeen mënee jug yuuxu ngeen jug mhm. parce que ay danger public lañu dafa am loo xam ne ni sénégalais ñu war benn taxawaay bi pour que plus loolu bañ a arrivé ti mhm. mooy tey jii justice dañoo soxla ñoo xamante ne nii dañuy am dignité des gens yoo xamante ne nii mais seen dañ koy def correctement seen serment bi nga xam ne dañ ko prêter ñu respecté ko mhm. am lu ñu gëm mais saa waay ñoo xamante ne nii yow yoral xaalis rek loo bëgg ñu defal ñoom lañ jàppee seen carrière ñoom l'essentiel mooy yoral xaalis mën leen a jox ay xaalis mën leen a jox ay terrain mën leen a jox ay kër loo bëgg ñu defal la quitte à ce nga def loo xam ne danger la lu mën a lor askan wi comme ils l'ont fait ak l'affaire Adji Sarr ak yeneen ak yeneen ci ay dossiers yu fi jaar Mamadou Seck toog benn waay boo xam dafay toog xale boo ko indil mu defeere mhm. ci ñoo xam ne defuñu dara dara dara dara nga toog sa bureau rek yow kuñ la indil nga defeere kuñ la indil nga defeere bay defeere des jeunes de 14 ans yóbbu leen ci kaso bi après kooku day dem toog tranquillement quoi ñu ne ñu bon léegi sanctionné bon bu fekkee sanction lañ ko jàppee sanctionné nañ ko léegi yóbbu nañ ko à Tamba mu dem toog Tamba. dafa yomb daf dama gëm ne kon poursuite judiciaire yooyu dafa war a am parce que nit réew mënoo nekk tam juge. am na loo xam ne ni ci wàllu yoon peut-être prévoir nañ ko moom la Thioune doon expliquer léegi mhm. je pense que war nañu dem vers parce que ces gens là waruñu yem ak ñoom ci ay yóbbu nañ leen à Tambacounda ak yóbbu nañ leen fële mhm. fi ñu war a jëm ak ñoom mooy yóbbu leen ci kanamu yoon comme ni ko yoon prévoir ñu teg leen coon parce que am na réew loo xamante ne nii kenn mënu ko bàyyi mu jàll mhm. ay ko déggee rek xamal ne waa dem na xamal moom mandat waaw nga toog noonu benn waay boo xam doomu jàmbur bu la neex rek nga jël yóbbu si kaso bi noonu noonu. Mhm. comme ça quoi après passé na jeex na. ces gens devront payer. Et je pense que affecté mooy lu gën a ndaw lu ñu war a mën a teg si seen kaw. et gëm naa ne tey daal li fi ma ko tàmbalee. mooy mbir mi gëm naa ne Sénégal yëpp benn territoire bi la. Mhm. si biir territoire bi nit fu ne war na faa mën a dem liggéey ji donc pour man damay am problème wu dégg-dégg wala daf may xaw a gêné su may dégg ñu naan non affectation mbirub euh, mbirub mbirub euh, sanction la wala yu demee noonu mm-hmm. donc gën naa ne au delà de ay yóbbu nañ diw Tambacounda dañoo war a teg ay sanction ci kaw nit yooyu noonu parce que mm-hmm. dañoo teg mbir yoo xamante ne tey askanu Sénégal dañ ko subiir ma xam mm-hmm. Diallo ma Seck ak sëñ Bassirou Guèye nga xam ne un procureur qui s'est permis dem xaw ma fan la ay photo pornographique xaw ma fu mu ko jël ko <laughs> mbaa du Google jël ko <laughs> jël ko dugal ko si biir PV pour dugal Ousmane Sonko ak Ndeye Khady Ndiaye. Mhm. dans cette affaire là pour gëmloo nit ñi ne mais Sweet Beauty du bërëb boo xam ne pour marché wula la waaye bërëb la boo xamante ne ay nit ñu ngeen baal ma nit ñuy cagatu ñoo fa nekk. Mhm. dem télécharger ji ay images pornographiques créer ay PV kooku nga yaakaar ne ëllëg da bàyyi noonu quoi après sëñ Bassirou Gueye tranquillement mu dem noonu. Mhm. dafa yomb donc pour man euh, nañu dem plus loin. Mhm. mais en tout cas rafetlu naa li nga xam ne ni moom moo xew. et que changement yi ñu def tey pour man réew boo si nekkee soo bëggee promouvoir dignité ak valeur da ngay xool nit ñi nga xam ne dañ koo incarner nga promouvoir leen. Mhm. donc plaisir la tey nga dégg ku mel ni Sabasy Faye taxawaay ba mu amoon bu fekkoon ne nit ku nooy la wala koo xam ne neex na manipuler heure bi du mhm. demee nii ku mel ni Sabasy Faye ku l' actuel ministre de la justice ak ñeneen ak ñeneen euh, le passé bëri na dossier yoo xamante ne nii jaar na ci loxoom dossier Cheikh bi ji Béthio Thioune bi euh, Thioune di wax léegi léegi mhm. ci loxoom la jaar moom l'actuel euh, procureur de la République moom moo nekkoon juge bi mhm. ak yeneen ak yeneen yoo xam ne jaar na fi mbiru Barab Taal ci jamono chantier de Thiès mhm. teg nañ ko ci pression bu métti te dafa daanaka euh, mu bañ ne du tëj baarataal ci kaso bi donc pour man ñooñu c'est des gens yoo xamante ne nii boo leen promouvoir mooy tey message la booy lancé si tous ces nga xam ne tey dañu bëgg a nekk ay magistrat mhm. que mbir mi waratul nekk mbir moo xamante ne da ngay toog ñu lay manipuler di la def loo waaye da war a gëm sa bopp am mhm. taxawaay xool liy dëgg nga taxaw si mhm. pour servir sa mais mais mais moom moo trio bi nan nga ko mën jàngatee ñoom ñett ñëpp nu jël leen boo leen ci benn cour fële ca Ziguinchor fële ca Tamba waaw nan nga jàngatee aussi trio boobu waa Tamba daal xam naa ne yéen a ngi ci yéen a ngi xam naa patriote aussi gars yi bu yeboo yoonu Tamba sax bu leen fa jaarati <laughs> xam naa ku mën a toog Ndakaaru mbaa nga xool feneen foo dem Tamba moom. <laughs> risque la waaw du nañ ñu may foofu rek. mais mais mais aussi euh, euh promotion bi nga xam ni euh, juge euh, Sabassy Faye am na ko.